summi malaanu kiiraayu Ousmane Sonko comme ni ko ministre de la justice sàkko comme fukki député lañ ak juróom ñaara fukki député ak juróom yëpp ñoom nee nañu Moustapha Niass ñun ànd ngir ñu xàll aw yoon woo xam ne danañu mën a summi malaanu kiiraayu Ousmane Sonko yeneen ñaari député yi ànduñu ci yéene kaay gi nee na dossier bu Ousmane Sonko Moustapha Niass jël na ko jébbal ko commission des lois commission boobe nag altine ji nga xam ne moom la ñu dëgmal danañu taxawal ab commission ad hoc commission ad hoc boobe nag maanaam mooy bi yéene kaay gi di réew mi xëlim ak Assane Sambo nee na nag fan la mbir mi di amee ay jafe-jafe wala nag tagga témbe dafa am wala nag ak yeexaange waaye nag du nekk assemblée nationale assemblée nationale moom lépp lépp loo xam ne sant nañu leen ko ngir ñu doxal ko ci mbiri Ousmane Sonko danañu ko doxalee good fine te du am benn jafe-jafe yéen kaay gi de la turbine nee na assemblée ni ki démb bureau bi teg nañ jéegu bu njëkk boo xam ne baaxul ci Ousmane Sonko en tout cas démb takk der yi feesoon nañu lool lool biir Ndakaaru yéen kaay gi de l'observateur na Serigne li nga xam ne maanaam mooy combat bi Serigne Bassirou Gueye x la visé waaye nag visé wul Ousmane Sonko guerre bu tar bu métti bu yàgg boo xam ne dina am ci wàllum procédure soo moytuwulee dina am ci mbiri Ousmane Sonko l'observateur mooy nettali yéen a gi de la témoin nee na en tout cas li am ba de sàll njiitul Pastef di Ousmane Sonko su ko neexee nag mën naa nooyi waat comme nag x la ñu visé maanaam mën naa jàkkaarloo ak juge d'instruction bi mu daal di koy yan ab contrôle judiciaire bañ koo dugal ca kaso ba bañ koo na Niass Koumba Abdallah nee yi nga xam ne dañ ko koo jébbaloon ngir nag ñoom ñu daal di jot ay éléments yoo xam ne danañu ko càmbar kaay gi mi nga xam ne moom la ñu wax ne moo jëlee Adja Sarr ca moom li nga xam ne moom la procès-verbaux yi wane moom bi ñu ko laajee ci couvre bi nee na benn xaritu avocat ma moo ko boolee ak benn médecin mu daal di koy yóbbu daal nay wax nag ne ki nga xam ne mooy Maodo Malick Mbaye sama baay bu ndaw la waaye amul lenn loo xam ne yëg na ko ci mbir mi moom Maodo Malick Mbaye bi ñu ko laajee nee na nag maanaam moom ci boppam am na loo xam ne politique jërulu ko ko mbir mi jàpp na ko lool te choqué na te ñi nga xam ne ñooy ak njabootam ñëpp jamono ji nag ñoo ngi def ay gëstu xool doomam bii ana lan moo ko dugal ci mbir mi mbir mi xew ci yéen a ko gii de la Quotidien mooy Serigne Abdou bu Daaru Muxti mi nga xam ne mooy Serigne Ousmane Sonko moom nag ma ngi tubayul Ousmane Sonko di ko taxaw dem na ca xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacke Bassirou la mu ko xamal mooy Ousmane Sonko dañu ko bëgg tuumaal li nga xam ne moom lañ koy toppee mbirum complot la njiitu réew mi di président mak Sall moom tim bi mu yëgee ne Serigne Abdou Mbacke dem na ca xalif général des Mourides moom Macky moo jël téléphone am woo Serigne Mountakha wax ak moom na ko lii maanaam laalewu ma ci benn yoon du ab complot affaire privée la maanaam daal di setal boppam yéen a kaay gi de altine bi nga xam ne moom la ñu génn ak manifestation yi nga xam ne jotoon naa am am na lu tolloon nag ci ñeen fukk ak nit ñoo xam ne tegoon nañu leen loxo ñoo xam ne ay pro Sonko lañu am na lu toll ci ñaar fukk ak benn yoo xam ne bàyyi nañu leen ñu dem am na ci ñaar fukk yoo xam ne am nañu retour de parquet ginnaaw bi ñu janoo ak procureur yéen a kaay gi weesoo Ndakaaru ca diwaanu Bignona foofee na ñoo xam ne teg nañu leen loxo ba léegi nii ñoo ngi xaar ak ki nga xam ne mooy procureur yéen a kaay gi de procès verbaux yi nga xam ne section de recherche def nañu ko am na ci nag ay prélèvement vaginal maanaam nag ndaw si si boppam xool nañu kanamam te nag li nga xam ne moo la procès ci nag kanamu ndaw si loole nag la gars yi di suus bi maanaam attekat bi li nga xam ne moom la sàkku nag mooy ab test ADN bu Ousmane Sonko yéen a kaay gi du source ñu xëy fekk fa maître El Hadji Diouf moom nag nee na Ousmane Sonko dafa war a nag am pëseef comme ni nga xam ne moom la borom ndombal tànkam maanaam ci assemblée nationale Maître la Diouf nee noone la Ousmane Sonko waroon a def te Ousmane Sonko war naa nangu ñu defal ko test ADN yéen a kaay gi de la témoin ci ayug Macky Sall gi yi nga xam ne dindi nañu fi seen immunité parlementaire bëri nañu lool yéen a kaay gi de li quotidien xëy sampablaac nee na sunu kilifa yi nga xam ne nekk ci réew mi lan moo tax ñu bëgg salon de massage yi yéen a kaay gi di direct las ñu koy fekk fa Alioune moom nag nee na démocratie bu Sénégal dafa nërmeeloo yéen a kaay gii de Les xëy na wax ci Joe Biden njiitul États-Unis bi nga xam ne mooy dànkaafu réew yi nga xam ne respecté wuñu àq ak yelleefu ñi nga xam ne ay borom ñaari tur la ña Joe la nga xam ne wax na ko nee na mboolem réew moo xam ne wàccoowoo ak nag àq ak yelleefu ñi nga xam ne ay borom ñaari tur yi la ña ndimbal li nga xam ne moom la ñu leen doon dimbal maanaam dañu koy dakkal seen kilifa yi ak fonctionnaire yi dootuñu leen jox ay visa yéen a kaay gii di réew mi quotidien nee na bi ma ngi ci réew mi mi bu leen ko fàtte ni ki démb lu toll ci fukk ak ñaar ñàkk nañu ci seen bakkan am na lu toll si ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ñu amee jàngoroy coronavirus am na lu toll si juróom fukk ak juróom benn ñu nekk Sowétas yéene kaay gii di Vox Populi nee na ngir nag saafara coronavirus bi tax na église bi maanaam amal bis boo xam ne daal bisub ñaan la bisub woora bisub nag dimbalante fukki fan la ak juróom-ñaar ci weeru février yéene kaay gii di Stades nee na Mohamed Salah ak Sadio Mané jamono ji ñoo ngi ci course bu mag ngir ballon d'or bi yéene kaay gi nee na en tout